dar hmm. a jàpp daal defal naa defal naa Ndeye Awa euh, Aliou. waaw asalaamaaleykum. jàmm nga am. <laughs> jàmm rek. ah Aliou yow résultat Mabo yi tam tam nag loolu nag moom nu mu demee noonu. gannaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi gërëm sumay waajur di sant sama sëriñ Seydi Mouhamadou Mouhamadou Sarr di ñaan yàlla mu yokk ay leeram yaakaar naa boo boo seetee Sénégal ku mu ci gën résultat amul parce que ñun département bi cinq candidats la ñu waaw ñu ngi lay dégg. cinq candidats la ñu am waaye ku mu ci gën résultat amul ni ma gañe ci bureau de vote ci département bi kenn gañewu ko rawatina Maabo goon ngay wax. mais Maabo dañ la faa gañe tëdu. waa biir Maabo man lañ ma gañe waaye dëkk àll yi wër. Maabo ah d'accord ok Maabo ko gañe bi ma nekk politicien ba léegi. may leeru hmm. Maabo waaye mënu maa gañe Maabo. àll bi nga koy gañe ko waaw. Hmm. maa gañe fi ma dëkk muy wanaan maa gañe Siin maa gañe Kumpel maa gañe Ndeyli maa gañe Kër Jibi maa gañe Kër Saab euh, maa gañe euh, Njorol Tukulóor Kumpel. laaj laaj leen ñoom. Mhm. département bi laaj gañewul. Mhm. waaye boo analyser li ma am yëpp commune Maabo. Mhm. waaw waaye département bi rek gañewuma ko. Ah, kon boo jëlee village yi yow yaa gañe commune Maabo. calcule ko. waaw non damay laaj rek. waaw. xam man sax seet tool yi gars yi wax rek yaa gañe commune man. li ngay gis nii kaw kaw laa man xooluma ma xamee ne dootuma gagné département bi laa ci pare man. Hmm. léegi département bi leer na ni kon Pastef moo ko gagné. waaw moo ko gagné may félicité ku ko gagné. Hmm. di ñaan yàlla mu def ma député ci sama dund. Hmm. parce que ñaari yoon nekk naa ko candidat député ñaari yi ma ko nekk yëpp liste bii ma bokkoon jàllut bii nag mu ñëw bokk ci liste ba mu jàll. kon loolu sant sunu borom la. bi may bëgg a nekk député booba nekkuma maire bële laa ko bëggoon a doon yàlla dogalut ko beneen bii yàlla dogalut ñaar yëpp jàll ma bii ma jàll bi ma jàlle li ma xam ci département bi su ma nekkuloon candidat ko xam mhm. te suba laa gën a bëgg a nekk député Sénégal mhm. mbër bu bëree daan day dem defarwaat waaw di ñaanal ki yàlla def député ci département bi yàlla na yàlla dogal mu liggéeyal département département bi rek moom a ñoroon ci député bi waaye du sama poche. sa mbër mu nga daan àndal muy bëree di daan ndax dimbali na la ci élection yi. waaw. Hmm. dimbali na ma lool. ma dimbali mbër rek ma dimbali ci élection yi. élection yi bëri na am naa ñaari mbër yu mu ci dimbali. Hmm. waaw am na sax élection yi li ma ci dimbali bëri na de parce que xam nga élection yi nit ñi may nañ ma ci quinze millions yàlla xam na loolu man du ma wax lu dul dëgg nit ñi may nañ ma ci fukki millions ak juróom ma dugg naa ko ci askan wi nag waaw waaw campagne daa metti carburant beeg waaj meeg t-shirt yeeg laa ilaaha illallaah man kay damaa yërëm gars yi campagne tax Sénégal yëpp man département rek laa campagne kaw maa ngi waaj a dee def nga quinze millions waay imagine imagine bu ma naroon campagne def euh, Sénégal yëpp man gars campagne Sénégal man laa yërëm. Mm-hmm. léegi bës bi nag noo def ak moom euh, gone yi man xam nga bu ma bëggoon a am bës man xam naa la bu ma bëggoon a am bës ba ma amee bës yàgg na <laughs> parce que man yàgg naa Ndakaaru politique moo grand rek waaye ma mel noonu li may yàgg yàgg ndakaaru mënumaa changé sama làng wax mënumaa changé sama jëf taw mhm. kaw laa te it staaru rajo wala télé laa bugguloon rek waaye fu ma jaar star la man fu ma jaar fii nit ñi dañ naan ëlliwë nga <laughs> yàlla moo dogal yow mii nii yow mii nii rek boo nekkee Dakar xam jafe jafe stress xam ni ngeen koy waxee mhm. dañu naan njëkk gis ma mhm. boo ma gisee lu naqari day dañ parce que nitu jàmm laa hmm. ndeysaan waaw mu ngoog waaw ñaanal Sénégal jàmm rek amin xam na nag man Ousmane Sonko nag man mii Ousmane Sonko xam nga ne moom a gagné waaye du candidat bi si neewam moom kan moo ko nekkaloon mbir ki lan Samba dal lañ koy wax ah d'accord kon ah, Koungheul kan la Samba dang nag nag député la woon itam yow tam Samba dang kay mat number. mbër ah waaye man mbër laa de moom ba muy campagne man ba may campagne sama bopp laa doon tudd nit ñi doon doon wax sax Aliou ci fan la sax <laughs> dafa koy man damaa wóolu sama bopp waaye moom daf naan su leen ma woteelu da ngeen a wor mm-hmm, mm-hmm. ci Sonko waaw ah, xam nga voilà xam nga Ousmane Sonko yàlla daf ko may mm. lu mu mayul keneen mm-hmm. waaw loolu la te gars yi moom la ñuy kii waaw nuyul ñu bàyyi nuyul ñu nuyul ñu bàyyi antu ah yow foo xamee bàyyi antu ah nuyul ñu ko rek waaw incha allah. waaye waaye yoon yoonu yoonu maabo bi nag xanaa nag euh, Pastef dina ko defar. Ah. man de damay toog mel ni kuy fotowu rek man kay député bi du réussir dara parce cinq ans ci kanam damaa bëgg def man <laughs> man kay bëgg mu mën liggéey dara. cinq ans cinq ans de pënd encore. waaw bu romb pënd sax bu doon sama sago day dolliwaat ay kàmb nit ñi dañu am fu ñu jaar. nee na waar maa woon dëkk la de ñoom ah, euh, ah, Ndey Juuf ah, Lambaay ak euh, euh, ndaw sa yoon daameloo si leen tudd yaay ja eh? ma ne ñoom Ndey Juuf ñu tudd sax waykat bi Ndey Juuf ndax Juuf bu sëñ Fall ak yaay ja waaw yoon daameloo seen dëkk bi dëkk la de war naa am tali. tali bi tàmbali nañ ko. télé bi ci jamono jamonoy Macky Sall lañ ko tambalé won état bi it ñëw na ci diko motalé mottali ngi ñaanal Samba Dam député bi noo ko yàlla na ko di ñaanal réew mi yépp jamm di ñaanal wa RFM di ñaanal télé ak radio bi lepp Yalla mi mën may jamm yeen journaliste yo Yalla na Yalla defal jamm merci ñoom ku leen bëgg Yalla na am jamm ku leen bañit Yalla nako Yalla fexé ba mbëgg leen barki yeenante merci merci Aliou jërëjëf Sénégal jërëjëf